voilà euh, Fatou Seydina Omar euh, Lamine euh, Badji boobu bokk ci xibaar yi nga xam ne Fatou Kiné Deme andil nañu ko ci rubrique un bureau politique bu parti socialiste fanweeri fan ci weeru décembre 2017 nag la amal ab ndaje mu yaatu ngir dàkk ñenn ñu bokk ca parti ba ñu tolloon ci juróom-benn fukk ak juróom di ay responsable bokkoon na ca xalifa Ababacar Sall. ay Aïssata Tall Sall li ñu leen dàqee nag ñoom ñëpp mooy dañu sàmmantewul woon ak tëralinu euh, parti ba waaye tamit euh, lanu lànkoon ni ñoom bokk ñu ci mouvance présidentielle ñu fàttaliku jëriñ ji ñu dénkoon biir réew mi di Ousmane Ngom ak abbé Augustin Diamecoune Senghor xaatim bi ñu amaloon nag ngir jàmm dellu ca Casamance muy euh, abbé Diamecoune sengoor bu mouvement force démocratique de la Casamance xaatim boobu fanweeri fan la woon ci weeru décembre atum 2004. Saddam Hussein fanweeri fan ci weeru décembre 2006 nag lañu ko faat mu nekkoon njiitu réew bu Irak gannaaw bi ñu gis ni moom Saddam Hussein. bañu ko fa jëlee ci nguur gi ba tey réewum Irak nag doon jànkonte lay jafe-jafe yu métti ci wàllu kaaraange. tey ñuy taxaw ci faatuk uh, Oumar Lamine Badji uh, fanweeri fan ci weeru décembre 2006 uh, ca Sindian ca Casamance mu jiite woon conseil régional bu Ziguinchor bokkoon ci parti démocratique sénégalais moom moomu nag dañu ko faatoon ay sàmbaabooy yoroon ni ngànnaay dal ci kawam Seydou Badji coordonnateur bu commémoration di bëccëg bi ñuy jagleel Oumar Lamine euh, Badji di delsiwaat euh, ci dossier boobu ak anam yi ñu ko fàttee jaar-jaar Oumar Lamine Badji comme ni ngeen ko xamee nekkoon na président conseil régional li yàlla dogal am na bi mu amee mbir mi lañu bëgg ñu wax leen tuuti année bu nekk trent décembre bu jotee signan ak fépp partout doomu aadama nekk fii la ñuy dase kër gi ngeen gis nii kër Omar Lamine Badji la jaar na tamit ñu remercier ñi ko doxal ba mu taxaw ginnaaw bi ñuy koy génnee àdduna yàq këram lépp yàqu découragement amul famille bi découragement amul fi liñ ci wax mooy depuis bi affaire bi amee ba mu ñu am ñu ñu jàpp ñu yóbbu leen ñu denc leen ba huitième année ci juge bi génne leen kaso ñu yóbbu leen li ñuy wax assise assise yi nag bi ñu ko defee ñëpp xam nañu résultat yi mooy lan mooy ñi nga xam ne juge dafa gis ne que ñoom bokk nañ ci li am ñooñu lañu téyee ci prison mu am ñeneen ñi nga xam ne ñoom daw nañu bi ñu dawee dem ay ay yeneen dëkk yu dul Sénégal kon mu ñu leen andi léegi nii pour ñu mën a kii donc ci boobu mbir mi mën nañu wax ne que dossier du moins justice moo ko yor bi ñuy jugé juróomi nit lañ tëj ci juróomi nit ci yooyu ñaar ñoo nekkoon ci prison donc tubaab nee ci nga xam ne bu mu bokkee ci benn mbir mu daw làqatu feneen moom dañu koy juger parce que nekku fii bu ñu leen juger dañu leen tëj vingt ans comme ñeneen yi donc ñoom tamit bu ñu demee dañu am yaakaar ne képp koo xam ne ñu ngi bokk ci mbir mi te ñu juger la par contumace nga daw li war mooy justice dafa war a toppatool dossier ñi nga xam ne ñu jëm jëli leen ñu andi leen liggéey bi ñu mënta apprécier mooy que famille ba tey mu ngi nii di xaar pour que mu mën a am li ñuy wax justice comme justice lañuy laaj kon ñu ngi koy laajaat encore tey jàkkaarloo ak yéen sénégalais yëpp di leen wax ne que ñu leneen que pour ñu toppatoo dossier ba dossier bi mën a continuer pour ñu mën a am lu leer ci génn àdduna Omar Lamine Badji Omar Lamine ñun mënuñu ko fàtte te ji nii ñu koy rappeler génnam àdduna mooy 16 ans xam nga 16 ans du lu tuuti mais ba tey ñun fàttewuñu ko na état dimbale famille bi ñun pour ñu xam ñan ñoo rey Omar Lamine Badji. Je pense que cette fois-ci ce sera la bonne. et j'ai la la ferme conviction que. jërëjëf euh, Fatou Kiné Deme ci élément boobule euh, Chérif Dia euh, lii ci ay jamono quand même kaaraange gi ca bët saalum réew mi taroon ñu bari doon fa faatu kii nag moom bi mu biñ ko reyee ci attaque boobu nekk na loo xam ne émouvoir woon Sénégal yépp mujjanteel gi sax parti démocratique sénégalais tuddee ko seen siège central bi nga xam ne moo nekk ci VDN. non parce que kii faatu du woon n'importe qui. étant donné que responsable bu mag la woon ci parti bi fi nekkoon au pouvoir muy PDS jiite woon conseil régional bu Ziguinchor julli jul tabaski jotoon comme ñëpp mu dem ci dëkk ba ngir waajal ko la veille justement de la tabaski la fa kon ay assaillants dugg këram daal di koy boom muy quand même exécution boo xamante ni métti woon nañu bari malheureusement traitement judiciaire bi xëy na comme ni ko njaboot gi waxee parce que am na ci ñoo xamante ni daw nan ñaar ñin ci jàpp jàppoon muy Aba Diédhiou ak Alpha Sane ñoom ci biir kaso bii lan mujjee ñàkkee seen bakkan am na ci ñoo xamante ni aussi dañ leen a condamné woon woon mais commanditaire yi lan Maradona ñan la maanaam ñan ñoo yebal ñii pour ñu faat ki nga xamante ni quand même moom mooy Omar Lamine Badji loolu quand même on s'attendait à que mbir yi leeral ko ci wàllu justice beneen bi tamit mooy ñi ne woon aussi dañ cee lool seen loxo da cee laale te ñu daw ay wàllu extradition fu ñu leen mën a nekk ñu indi leen jëli leen indi leen bu ci Interpol yi nga ko defee loolu aussi njaboot gi yàgg nañ koo sàkku mais ba léegi France daal di xam ne on a même lu le livre bi nga xamante ni colonel Aziz Ndaw nekkoon fi gendarme bindoon na ko ci moom li mu jàppoon en tout cas mooy njortoon na ni waa MFD aussi aussi seen loxo génnutoon ci li nga xamante ni quand même mooy assassinat bi parce que il voulait xëy na marquer les esprits na boom koo xamante moo taxoon quand ñu daal di ciblé ki nga xamante ni moom mooy Omar Lamine Badji mais njaboot gi dégg nga discours bi nga xamante ni moom c'est émouvant parce que bu fekkente ni ñàkk nga sa proche li ngay xaar mooy pour ñu rendre ko justice ñi def lii yoon mën na teg loxo am na ci ñaar ñoo xam ne jàppoon na leen condamné na mais dañoo génn àdduna ca kaso ba wante ña leen yabal moom ba léegi yoon leeral ak ña dawoon it ñu jëli leen fu mu mën a nekk bu dee ñu ngi dund. voilà Marcel ça nous rappelle euh, les heures sombres quand même de la crise casamançaise loo xam ne de mal à ce beaucoup de mal au Sénégal quand même euh, dañ koy faral di fàtte et puis euh, bon je pense que tey ki nga xam ne moom mooy Oumar Lamine Badji da koy da koy illustrer ndaxte c' était aussi un un combattant fervent pour cette unité cette union du du territoire sénégalais face à ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi bëgg rek jël indépendance ca ca ca Euh, je pense que Abdoulaye Wade en avait fait un, un vibrant hommage ba muy ba ñu koy ba ñu koy euh, jébal boromam euh, donc euh, fàttali woon ki nga xamante ne c'était un courageux militant non seulement waaye tamit euh, koo xamante ne il avait vraiment comme ni ma ko waxee ci unité boobu noonu pour que la paix revienne en en Casamance donc loolu waral sax comme ni ko Chérif waxee am ancien colonel gendarmerie bi di Aziz Ndaw jàpp ne peut-être waa MFDC ñoom ñoo ko boomoon donc voilà en même temps koo xamante ci wàllu politique en 98 par exemple Abdoulaye Wade moo ko doon confiscation ni mu waxee du des de la victoire des élections législatives euh, ci ci Ziguinchor woon na fa rôle ama am solo ngir euh, ngir bañ ko euh, et voilà tout un ensemble lu tax tey luy luy justifier li nga xamante ne moom mooy ni ñu rebaptiser permanence su parti démocratique sénégalais waaye tamit li bu nekk ca ca Djibok buy benn périphérie de Ziguinchor nga xamante ne tuddee nañ ko tamit Oumar Lamine Oumar Lamine Badji. voilà merci Marcel dañuy dem ci 7h info ak Ibou